di sant yàlla nag ci nawet bi di sant yàlla ci ñaan gi nga xam ne moom la sëñ mi ñaanoon bi ñu jubloo nawet euh, leer rek euh, fi nga xam ne fi la liggéey bi toll ndax tey boo xoolee li nga xam ne état bi tamit liñ ci def ak jàppale yi nga xam ne def nañ ñu ko ci li nga xam ne mooy euh, mbay mi am na solo lool ndax tey boo xoolee ci wàllu gerte gi mën na noo wax ne mi ngi nekk ci li nga xam ne ay vingt deux mille tonnes doxal nañ ko ci it boo xoolee daaw mi ngi nekkoon vingt deux mille tonnes sept cent cinquante cinq ren nekk vingt deux mille tonnes à euh, 64 nga xam ne 2019 moom mu ngi nekkoon 19 euh, mille tonnes 19 euh, 892 kon ba tey ñi ngi gerte gi moom sant nañ ci yàlla ci li nga xam ne tonnage yi nga xam ne moom la ci président Macky Sall def jàppale ko jaral ko ci ministre de l'agriculture ñu xool it li nga xam ne moo jëm ci urée bi xam nga am na ñoo xam ne ñi ngi génn di coow ci ñoom li ni coow it jàngatuñu li nga xam ne moo nekk ci gannaaw ndax tey boo xoolee ne prix yi yokk na ci fépp ci monde bi ngir wàllu kuwit bi ni mu waaye it ñu jàngataat na it euh, bi prix yokkee yokkee nga xam ne bato boo daan euh, euh, importe ci wàllu urée wala lu mu mën di demee tey boo ko xoolee da nga koy fay ñaar ba ñetti ñett yoo xam ne nii ca la nga ko daan fay bu doon ñetti dërëm la mën na wax ne da nga fay juróom-benn dërëm wala wala juróom-ñeenti dërëm kon foofu dana gis ne économie bi ni mu mel ci adduna bi ak corona bi lim fi def lim fi yàq ci wàllu wér-gu-yaram waaye nag lim fi lor ci ay bakkan yàq ko ci wàllu wér gu noonu la ko yàqee lu ko raw ci wàllu économie kon it nit ñi dañ ko war a bàyyi xel gis ne it usine bi fi ne DSS na mu na mu waroon a doxaleet doxaleewu ko ndax boo jàngatee ne euh, bi nga xamee ne euh, ñoom xam na ne gàllankoor importé ñi nga war a importé jafe-jafe am na ci économie yokk yu mel noonu ñoom it dañoo profité di yokk seen i prix yokk seen i ñoom ci seen jëmi boppam euh, ci la mini yokk nañ ko ñaari yoon ba ñetti yoon ci ko ministre de agriculture ah maanaam bloqué maanaam mm, mook Euh, ki nga xam ne mooy ministre du finance muy Abdoulaye Daouda Diallo waaye depuis que ñu bloqué ko ba léegi si ñoom bu ñu war a bu ñu war a def 500000 tonnes wala ñu war a def nang ay ay ay ay tey ci loo xam ne ni xayma euh, war na noo génnee ci bis bi lu toll ci ex euh, exemple xayma laa wax lu toll ci 20000 tonnes wala 10000 tonnes. Euh, den daanaka duñ ci sax génnee maanaam lu toll ci 5000 tonnes wala yu mel parce que ndax li ko waral mooy yokk gan waroon a def ca loolu euh, état bi bloqué ko te ñoom amuñu ci lu ñu perte parce que buñ ko buñ ko dencee suñ hivernal bu bu jàllee rek muy nawet bi ñoom mën nañ ko jaay Brésil mën nañ ko jaay ci yeneen réew kon loolu it ab jàngat la boo xam ne acte la boo xam ne vraiment dañ koy dénoncer parce que lu mel ni usine boo xam ne mi ngi ci dëkk bi ay ati at am ci yoo xam ne bu jafe-jafe amee ci wàllu économie ko it war naa xool nan lay def ak fournisseurs yi ak nan la war a mën a waaye du doon loo xam ne day yokk ay prix ñu wàññi ko bloqué yokk prix yooyu euh, ministre de finance ak ministre de l'agriculture mu wàññi ko moom ci jëmmi boppam ah tegaat ci nag euh, tonnage ba mu waroon di produire par bis dutu ko du ko defati parce que ngir rek amu ci lu mi perte kon loolu it dañ koy dénoncé lépp loo daan jënde bitim réew na xëy na ci lu mel noonu état bi ci wàllu commerce mi ngi ci def la tout ndax boo xoolee ne daaw euh, yokk nañ mburu mi euh, li nga xam ne mooy euh, euh, wàllu état bi liñ ci doon am dan 10 pour cent la woon dañ koo dagg daanaka ba 6 pour cent pour rien que bañ prix mburu bi cinquante yi changé situation bi nga xam ne moom la ñu waroon def 10 pour cent état bi président Macky Sall da koo dagg ba 6 pour cent ah pour ministre du commerce ñu mën a doxal lu mel noonu pour li nga xam ne mooy mburu mi bañ a wàññi ko yu bari nag état da koy xam muy ñëw. ca du ko mën a euh, du ko mën a wax ndax la muy bañ mooy population am tiit wala am ak jaaxle waaye yooyu yëpp it maanaam euh, nañ ci taxawee ñoom ñu ngi ciy continuer di taxaw ci xool nan la ñuy def ba lu mel noonu bañ am ndax daaw boo seetloo fii rek toog nañ fi ne ci jamono corona bi maanaam rations yi day bu bu euh, prix yi day yokk dund bi day day dem ba ñàkk. boobu lan la nit ñi def nit ñëpp danoo dem ku nekk jënd ay ration yu du jeex da dajal ko ca fekk ne loolu mooy mooy indi mooy indi problème parce que bu ñëpp jëndee ration yu du jeex ca booba ay information yu la génn rek ñu génne na nee na dund bi bu nit ñi danoo mujj nekk ci ay jafe-jafe ndax mënoo dem fenn ba fekk ko kon yooyu ay mbir la yoo xam ne moo tax état lu bari bu ñëwee da koy xool nan la ko war a mën a seere ak naka la war a mën a taxaw ba population bi tamit duñ ci gaañu waaye doon loo xam ne it dana li leen tiital ñu gis ne kon euh, ren fii ñu toll ci hivernal bi mi ngi contenu ñi ngi contenu di joxe engrais bi ñi ngi ci eh, ay lu toll ci dix mille tonnes trois cent trente deux nga xam ne eh, daanaka boo xoolee daaw eh, dix dix huit mille la woon kon ba tey ñi ngi contenu fii ba septembre kon jàpp na ne it danañ war a mën a am ba egg foofu ca boo xoolee deux mille dix neuf bi quatorze mille la woon ca foofu la jeexee woon kon ba tey dix mille et quelques tonnes boo ko amee ca dix huit mille tonnes nga amoon daaw daaw jéeg nga am dix neuf mille tonnes kon jàpp na ne ci ay jéegu it ñu ngi koy def ca. li nga xam ne mooy joxe engrais bi jeexagut gëm na ne bala bala muy jeex dana mën a egg foofu li ma wax rek duma ma ci sori ci wàllu opposant bi mais li ma la am wax léegi ni nag ñoom seen dajaloo tasar rek moo ci mujj parce que ñi ñi nga xam ne nekk nañ ci biir kenn ku ci ne ci sa bopp xam naa la ni ma ni la xamee kon gëm naa ne kenn ku ne day bëgg a jiite loola kon nag comme que kenn ku ne day bëgg jiite ñoom seenu dajaloo euh, yaakaar naa ci tasar lañ mujjee ni ma la ko waxee rek président Macky Sall boo xoolee nii mu teewee benn bokk yaakaar ay at <laughs> opposant bi mënuñu koo ànd sax si mois yu mat kon gëm naa ne ñoom seenub dajaloo amul solo ndax bu dee sonk la ndaw la euh, euh, luy soog a jëg la di cëppi-cëppi kooku da nga koy bàyyi ak deretam ju tàng ah ñeneen ñi ci des nag moom ñu ci bari primé nañ ku primé nag danga koy toog di ko seetaan parce que li ci ëpp solo ku jàpp ne boo xoolee histoire Sénégal képp koy soog a jëg danga am benn taux bi ci sa wàllu euh, ay ay ay ay ñi nga xam ne jëg nañ pour jàppale la mais boo xoolee ca ndem si yàlla si jiba ko ci Moustapha Niass ba ci Idriss Seck kenn ku ci ne ba nga taxawee di di laaj am réew cëpp moment ba nga jegee taxaw ci jamono yooyu lu ci nekk rek maanaam nit ñi topp na ko nekk deuxième position kon jàpp naa ne ba ci président Macky Sall mi ni def ba gañe bi mu ñëwee taxawet ñëpp dañ ko jëg topp ba tey jii mu nekk président loolu nag sens la ñi ci des nag euh, euh, di wax kenn la moo ci ku ciy bees parce que ku ñu mën a wax muy Sonko ca kooku moom mooy li ma la wax rek gone gu gu yaramam tàng la muy cëppi-cëppi yooyu moom amul amul ah, nit koo xam ne nii mooy li la wax directam day tàng muy cëppi-cëppi kooku do ñun tiitaluñu ca ah, it gëm nañ ne ah, moom ci jëmmi boppam ci kanam tuuti bu demoon ay élection li mu amoon sax du ko amaat du nekk sax troisième position loolu lu ma leer la kon ñoom man seen wax moom bëgguma sax di ci perdre sama temps muy opposant Sénégal yi ndax opposant Sénégal bi lépp loo xam ne am na ci lu baax danaan danaan baaxut ki laa gisee opposant mu opposant danaa nangam baax na nangam baax na wala nangam nañ ko yokk nangam baaxut waaye nangam baaxut nangam baaxut da ngay dem ba nga xam ne yow ci sa bopp euh, dutoo sax nit ñi li ñuy liir ci yow dutoo nekk nitu dëgg loolu mooy li am solo ci ñoom.